Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue sous les ondes de votre, votre télévision préférée, euh, Salam Vision. Voici quelques flashs d'informations. L'actualité oblige, nous allons revenir euh, depuis ce matin sur l'affaire Ousmane Sonko. L'idée du PASSEF a été finalement arrêté par la gendarmerie, les GIGN. Ousmane Sonko avait euh, quitté sa maison aux environs de 9 heures. Euh, il est arrivé Il, aurait fallu 4 heures euh, pour bloquer la situation. Les Sénégalais étaient euh, dans l'angoisse, les Sénégalais étaient euh, concernant l'affaire Ousmane Sonko. Finalement, ce sont les éléments de les, des GIGN qui l'ont arrêté devant ses avocats. Finalement, Ousmane Sonko a été transféré d'urgence à la brigade de chef de la gendarmerie de Koloban pour l'auditionner concernant toute cette situation euh, qui a perduré à Dakar, imaginez-vous, pendant 4 heures euh, la circulation était bloquée, les Sénégalais étaient indignés euh, sur euh, cette euh, matinée qui était débordée aux alentours de la Védène, de Wakam, de Mermoz, partout. C'était la stupéfaction concernant l'affaire Ousmane Sonko. Nous y reviendrons très prochainement. toujours l'actualité nationale, les 17 femmes Euh, du PASTEF ont finalement décrété une grève la veille. Ces femmes euh, sont sous les mains de la justice. Elles ont été euh, incarcérées pour, pour organiser des sittings devant le monsieur Ousmane Sonko. Vous savez, cette marche était interdite à cause de cette maladie du coronavirus. Les organisations des droits humains, il s'agit bien de la radio euh, d'Amnesty International, tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités de libérer ces femmes innocentes qui ont décrété une grève de la faim du bien, des femmes euh, du PASTEF euh, qui sont aujourd'hui incarcérées au niveau de la police centrale. Or, de chez nous, c'est maintenant euh, officiel, euh, chez, or de chez nous, au Tchad, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Guillon, demande aux étudiants euh, de calmer le calme, la sérénité et la paix civile, le Haut-Tchad. Vous savez, le Tchad euh, prépare l'organisation présidentielle du 11 avril prochain. Un opposant dans sa maison a été victime euh, d'attaques. Bilan, deux personnes ont trouvé la mort. La France demande la paix et la stabilité au Tchad. Enfin, l'ancien président français, euh, Nicolas Sarkozy, a été condamné euh, trois ans de prison, dont un enfant, Nicolas Sarkozy, est accusé de corruption et de malversation financière. mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama ko ci bar ngeen xam ngeen euh, ki nga xam mooy Ousmane Sonko tey lañ ko doon déglu neuf heures si suba euh, fële ca euh, palais de justice ki ko doon déglu mooy juge d'instruction Euh, ginnaaw bu ñu ko convoqué Ndéwër Soble xam ngeen ni euh, tey Ndakaaru euh, circulation baa ngi bloqué Ousmane Sonko ne fii lay jaar préfet ne moom dafay jël yoonu corniche bi pour yombal yoon bi mais Ousmane Sonko kay ñooñam mooy ay militant ñu fees del fële ca avenue fële ca Mermoz barre circulation mooy ni ay jiixi jaaxa ak ay gàllankoor si circulation xam nga Ousmane Sonko ñu ko convoqué 9 heures si suba mais benn waxtu une heure la euh, ko waa GIGN jël si si kanam ay avocat Bamba bi euh, Bamba Cissé ak maître Khoureyssi Ba mun nañu wax nag euh, jamono jii ñu ngi koy déglu fële. ci brigade de la recherche bu Colobane xam mooy Ousmane Sonko di jiite Pastef tey suba Dakar tàngoon na lool amoon na jamono ay jamono nag diggante takk-der yi ak euh, militants yi ñuy sànnante ay xel am na ñaari euh, journalistes yoo xam ne fa am gaañu gaañu métti métti métti loolu métti na euh, xam nga moom mooy autorité yi jënd seeni i motuwaay xam nga Ousmane Sonko teg nañ ko loxo jamono ji ñu ko doon fële te bu Colobane. dañuy des si mbirum fukki jigéen ñoo xam fukki juróom-ñaar. xam ñoo ñu yeewu aussi Pastef dañ leen tegoon loxo euh, kii di police doon dox doxu ñaxtu euh, fële ci buntu kër Ousmane Sonko ñoom nag dañu tàmbale xiifal am na si ñoo xam ne dañu feebar ñoom àtte nañu pour toog fële ca euh, police bu centrale yoo xam ne moom ñoom ñooy waa RADDHO organisation des droits humains ñu ngi woo askan bi woo nguur gi autorité judiciaire yi ñu mën a bàyyi jigéen yooyu si mbirum xibaar ba léegi xam ngeen ni tey mbirum Ousmane Sonko mooy indi Euh, coow li fii ci dëkk bi euh, nañ si ñëw si yenn xibaar bitim réew la ñuy doxantu xam ngeen ni fële ca euh, bitim réew Tchad ci yore diplomatie français bi i Jean-Yves Le Drian mi ngi woo suñu mbokku Tchad yi ñu ànd ak yar ak dal di waaj élection présidentielle 11 avril atum 2021 ki xam mooy ministre français des affaires étrangères mi ngi ñaawlu ginnaaw bu ñu songee que opposition que opposant boobu Yaya Diallo fàttali fa doomu aadama ñaari doomu ki xam mooy France Euh, ñu ngi koy tëjee fële ca euh, France xam nga ni France ki fi nekkoon président de la République di euh, Emmanuel di Nicolas Sarkozy dañ ko daan atu kaso ñetti at na tëdd na tëdd at moom dañ ko tuumal tamit da ay koppar yoo xam ni dafa dëppaloo yoon xam mooy Nicolas Sarkozy ko si ay pro ay ay pro ak ay propositions yu bari yoo xam ni da doon jalgati xam mooy Nicolas Sarkozy boo moytu nag dina wuyuwaat si kanamu juge bi euh, fan yi di ñëw li mën si ay tënk si kàllaama Kocc Barma mbokk ñu ngi gërëm leen sant